bismillah cant bi ak bokki jullit yi nga xam ne ñoo ne ci biir dëkk bi ak bokki jullit yi nga xam ne ñoo ne àdduna bi te dañu déglu baa ngi duñu seetaan ñoo ngi leen di nuyu te di leen jaar di leen balu àq te di leen ko baal di jiital ci nuyoo boobu ki yàlla teg ci bopp yoonu murit di alxaaji Seex Sidiyal Muxtaar xalif général kulu murit ñu ñaan suñ boroom mu gën ko fee yàggal lool te gën ak wéram moom rek damay wax ne ndam la ci maam Cheikh Anta ndax sëriñ Sidi Mokhtar moom maam Thierno Ibrahim borom Daaru Muxti ñu gën koo miin ci Cheikh Awa Balla lañ ko tuddee Cheikh Awa Balla moomu maam Cheikh moo ko tuddee boppam kon bu ñu demee ba turandoo turandoo maam Cheikh Anta ak yoonu murid wépp loolu ndam la ci maam Cheikh bu ñu ko nuyoo fab nuyoo boobu mu jaar ci sëriñ Mor nga xam ne moom la yàlla teg ci bopp njabootu maam Cheikh Anta muy kilifa bu neex a àndal moom bu ko nuyoo nuyu nañ xam ne moom it mooy xalifa sëriñ di jëw ñu dëkk bii ñu nekk ànd ak tam sëriñ Abo ñoom it ñu fobaat liggéey bépp bàyyi ko waat ak seenu njaboot ak seeni jarbaat ak seeni sët te ñooñu ka nekk ci bopp ba di sëriñ bii toog di sëriñ Cheikh Anta xalifa sëriñ Modou Rokhaya moom nag mu ñëw ànd ak ay bokkam ay bokkam moo di ay rakkam ay bokkam moo di ay wayjuram ay bokkam moo di ay jarbaatam ak ay sëtam ñoo fekk ñoo bokk daje ci tànt bi njabootu maam Cheikh Anta benn buntu këru maam Cheikh Anta desut ñoom ñépp ñu ngi nii toog njabootu Serigne Modou Mamoun rakkam yi mu bokkal Serigne Modou ñu ngi toog loolu nag su amee mooy li maam Cheikh Anta bëggoon moom li Serigne Touba bëggoon mooy bennoo boo xam ne dañuy jàppandoo di bàyyandoo loolu feeñ ne ci nii Serigne bi doxee ndax mbir bu doxee daa mat leeral rawatina ak yokkute bu amee la la ko yokkal war nga sant te mbokk mi toog di sëriñ Aliou Dia dafa mas wax ci tànk bii ne boo dee organisé loo nit aw xew ren ba déwén te nuyoo la wule ak ganeen gan goo xamutoon nangul saw xew te xam ne kooku yokkalu la ko kon yaakaar naa ne ku ñëw ci tànk bii la xam ne am na gan ñu fi nuyoo ñu fi daawul ñëw loolu nag dañuy jiital ci cant bi comité d'organisation bi nga xam ne Serigne Khadim Seye moo ko jiit ànd ko ak Serigne Seexu Naamu Serigne Amidou ñoo ànd ko ak seen rakk yépp ci ndigalul seeni kilifa ndax monsieur le ministre màggalu Daaru Salaam mooy événement bi mag ci yoonu murit ñu def ko Serigne Touba fekke ko Serigne Touba janvier 1903 la ñibbisi woon jaar ci Daaru Salaam lu jiitu janvier 1903 ba 1850 1852 di sëñ Touba fay jamono amul ci benn diggante bu sëñ Touba masa toog ak njabootam wër ko ñuy ñuy lekk ak naan ci jàmm di jaamu yàlla lañ ko bëgg 1852 ba 1903 loolu amul 1903 la sëñ Touba njëkk a toog yoonu murid yépp daje fi moom ñuy def ay bernde maam Seex Anta jiite bernde yi doon ko def fii ci Daaru Salaam kon màggalu Daaru Salaam mooy màggal gi mag ci ab daje ci yoonu murid màggal boobu nag bañ ko dalee def ba yàlla dogal mu as ci loxo yi mag ñi Serigne Modou Rokhaya njëkk a wuutu Serigne Modou Mamoun di mag sët bi mag ci njabootu maam Cheikh Anta di wajuru Serigne Cheikh Anta bi mu demee ba 1983 lu ko jiitu màggalu Daaru Salaam gouverneur bu ma saa ñëw day fekk Serigne bi ci kër bu mag yi. ci néegub seng ba fa nekkoon sëriñ bi nuyoog ñoom jox leen boisson dañuy wax ñu wax ko ko ba mu yàgg mu wax sëriñ Cheikh Anta na ko màggal gi de weesu na fii te bu ma sañoon gan ñi fii ñëw danañ leen teral kon damaa bëgg waxtaan wi bokk yi di wax nga yóbbu ko ci sama kër bii kañ koy defee jamono jooju moo daleeg sëriñ Ibrahima Mbàkke Ndar di xalifa Maam Cheikh bu bu ma juumut ci li may wax Serigne Babacar Mbacke ñi amoon na ca taxawaay bu ràññiku ak Serigne Iba Tall ak Serigne Saliou ci ndigalu seen kilifa ñuy def waxtaan wi fii ba yàlla dogal Serigne bi loolu ñor ko 1984 la njëkk a wut ay tribune andi ko Daaru Salaam wut ay ndaw yabal leen archive nationale boole leen ak Omar Ba ngir ñu gëstu ji jaar jaari maam Cheikh Anta léegi dañu di jóg ci di taxawu màggalu Daaru ba yàlla dogal ñuy dem ba gouverneur di ànd ak ab ministre di ñëw ci màggal bi ñuy dem ba délégation yi di ëpp lii loolee nag sëriñ Cheikh dafa wax ni ñu ko ci jàppalee ba aw ko ci moom war naa sant ña ko ci jàppale te ñooñu kenn jiituwu ci comité d'organisation bi di sëriñ Xaadim Sali ànd ko ak sëriñ Seexu naan waaye seen wajur di seen xarit jàpp ci jàpp boo xam ne moom it war nañ ko beral loxo ba àdduna bépp yëg ne beral nañ ko loxo ndax sëñ abdoulahat noonu na du ma sant ku ma defalul dara waaye ku ma defal dara ma sant la ba àdduna bépp yëg na sant naa sëriñ babacar mbàkke moom sëñ ibra ndar ñi ci tuuru sëriñ Cheikh Anta ak comité d'organisation màggalu nga def ak yokku la màggalu Daaru Salaam ñu def ko direct ci télévision yi ñu di ko wane àdduna bépp di ko seetaan ak yokku la kon ñu ngi lay sant ci taxawaay boobu nga am la nga tudde woon sa bopp ne soldaaru borom gaawaan ba mu yàgg nga xeet ko sax ne maay jaamu kër borom gaawaan yaa ngi koy wane ndax nit bu fekkee ne man manam la am ak yéenéem te boole nga sa man-man ak sa yéene ngir jàpp ci liggéey bi ba mu mel ni nga mel kon sëriñ bi nee na mënuñu laa ñàkk beral ak cant tey ñaan sa maam yàq doole sa kattan ak sa xiwal bu ñu ko santee danañ sant bu baax alaaji sëriñ Cheikh Amar bu TSE nit bu fekkee ne am na yéene ba noppi boo la ci jëf war na koo sant ndax direct yi ñuy def TFM lañ waxoon ak seen TV Cheikh Amar woo na El Hadj Sitaan boole ko ak Birane Ndour jox ndigal ak engagement yi mu ci war a jël def teg nañ appel ba teg nañ màggal bi def nañ ci ay waxtaan direct bi Cheikh Amar Bët léegi nii la soog a yëg ne waa TFM ñëwul pour def direct bi kon moom it mënuñu koo ñàkk sant ndax la ko ci war lépp def na ko kon ñu ngi koy sant di sant njabootu alaaji Mayoro Fall njabootu alaaji Mayoro Fall Serigne Tako Fall moo ne ci seen kanam ànd ko ak Serigne Modou Fall Max ñooñu seen bàyyi alaaji Mayoro Fall moo njëkk a nekk secrétaire particulier bu maam Cheikh Anta mboolem journal bu ñu mas di bind ci réew mi maam Cheikh Anta daan ko jàngalu seen bàyyi moo ko daan jàng la ko tàmbalee ca Dakar matin ak Paris Dakar yépp boo ñëwee ci archive yi maam Cheikh Anta ci fekk ay journaux yu bare bare bare kon ñoom it bu ñu demee jël engagement ne danañ ànd ak comité d'organisation bi lépp luñ taxaw ñu ànd ko ñoom mënuñu leen a ñàkk a beral ak cant ci turu Serigne Cheikh Anta ñaanal leen yàlla mu dolli seen xéwal Serigne bi nee na ñu ngi sant bu baax Serigne Abdoulaye Pall trésor moom it comité bi yëgal nañ ko tax taxawaayam lam ci war lépp def na ko ci ñu ngi ñaan seen jaawaan doole ay xiwalam di sant jigéen ñi ci seen taxawaay mobilisation bi ñu def ca conférence ba santaat leen mobilisation bi ci teeru gan ñi dalal leen waaye ñëw teew ci cérémonie bi taxawu ko ba mu àgg ànd ko ak seeni càmmiñ ñoom it Serigne Cheikh nee na sant na leen mi ñaan yàlla mu fay leen su kawe seen jot kon délégation yi teew sëriñ bi day wax ne bis bii ñu teewkat day bisub ñaan di bisub yaakaar te am koo xam ne dafa bokk ci kër gi doon ci kàngami kër gi bokk ci njabootu maam Cheikh Anta bokk ci njabootu Serigne Touba te suñu boroom jële ko fi mu di Serigne Abdoul Fatah Mbacké Gaynde Fatma koñ nattal bi taxawaay bi mu amoon ci màggalu Darou Salam daan ko am ci waa Darou Salam tey kii mooy bisu ñaanam kon sëriñ bi nee na ngi ñaan ku ne ci tànt bi nga ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu dolli ko ak njëgal wane la ko ak maam am Cheikh Mahamadou Moustapha ndax bu ñu toll lii dañuy àndandoo ñu ñëpp def Touba am nañ ñoom sarax sa ba mu àgg ndax yàgg naa ñëw Daaru Salaam di seet si waa Daaru te bu màggal bi ma saa mu génne aw ñaxam di ko ci def kon moom it ñu bàyyi loo xel ñëpp ne loolu tey jii la xew te ci mbokk yi la xew délégation bi teew nag ki ko jiite mooy Serigne Mountakha moom Serigne Bassirou moom la Serigne Touba Cheikh Sidi El Mokhtar yónni mu ñëw ànd ak Serigne Cheikh Baax la ànd ak délégation bu mag ñoom ñépp ñu ñëw ànd dem ci Serigne ji li muy xalifa bi saafu anteel moom jottali ko kàddu Serigne Sidi Mokhtar ak ak bëggam mu ànd ko ak Serigne Cheikh Anta Serigne Sidi Mbacke mu Cheikh Abdou Lahad ñëw na fi ay yoon Serigne Bassirou mu Serigne Abdou Khadir ñëw na fi ay yoon yoon ay jëfam ñëw na fi sëriñ Mourtala Mbacke moom sëriñ Fallou sëriñ Fallou Mbacke moom sëriñ Mourtala sëriñ Bachir moom sëriñ Abdoul Khoudous sëriñ Amsatou Mbacke mu Cheikh Abdoul Ahad sëriñ Cheikh Mbacke Dar Rahman sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Aliou délégation bu bàyyi koo ci sëriñ Cheikh moom sëriñ Abdoul Khadir sëriñ Cheikh moom sëriñ Saliou délégation bu bàyyi koo ci sëriñ Sidi mu sëriñ Abdoul Khadir njabootu Mamor Diarra njabootu sëriñ Massamba njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall ci teewaayu sëriñ Moustapha Fall ñoom ñëpp ànd nañ teew si ci liggéey bi sëriñ Abdul Karim makaarimul axlaaq moom sëñ Fallou njabootu sëriñ Abdul Karim makaarimul axlaaq moom it ñëw na fi lool doon xaritu sëriñ di wëlëree waaye xam nga ne màggalu Daaru Salaam bu ñu ko waxee maam Cheikh Anta ak sëriñ Afiya ñooy ñaar ñi nga xam ne ñoo bokk ndey ak bàyyi lépp ñoo ko bokk ñoo àndandoo dem ci sëñ Tuuba ñoo àndandoo seen dund ñoo àndandoo génn àdduna loolu ak juboo ak ak bennoo mënu koo fete kaw sëriñ Afe talaata la génn àdduna ci fajar ci 1940 le 31 décembre 1940 talaata la sëriñ Afe génn àllarba premier janvier 1941 maam Cheikh Anta génn àdduna loolu ñépp ñoo ko bokk sëriñ Tuuba moo waxoon ne Cheikh Afe yaay dalal Cheikh Anta fa muy tëdd ci àjjana kon njabootu sëñ Afa kenn desul kon daal sëriñ monsieur le maire Abdoulaye Ndaw teew na jotaay bee xam ak xam ne ministre bi day dem ca sarax sa loolu moo tax waaye moom lañ bëggoon ñu lépp ubbi dalal gan yi waaye ginnaaw ba ma daanelee dañuy jox sëriñ Aliou Dia moom di mbokk ci bi di mbokkum sëriñ bi di xaritam doonal doon li sëriñ yàgg fee teew moom la jox kàddu ji moom ñu yëg ci ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di balu àq ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bismillah alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala mawlana rasulillah sayiduna wa nabiyuna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bokki jullit yi ci kàttanu sun borom tabaraka wa taala bi ñu jullee di sëlmal sangu-sangu yi yépp bu muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi yëkkati kaddu di kaddu nuyoo di ko jëmale ci borom daaru salaam ci xalifa bi ki mu doyloo muy maam Cheikh Anta bii ma teg ko ci loxoom mu jox ko xalifa bi mu jottali ko képp ku ci aju ba mu egg ci sëñ Sidi Maxtaar mi nga xam ne moo suñ kilifa ñun nuyoo boobu di nuyoo bu yàlla tànnaloon jullit yi muy sang nuyoo yi mu di asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala di nuyu it njaboot bi yëpp ak doomu soxna yi fi teew waaye di nuyu it euh, le ministre Aly Ngouille Ndiaye bi fi taxawal tey chef de l'État le président Macky Sall di nuyu bépp kilifa bu fi ne ci gouverneur préfet maire Mbacké ak honorable député yi fi nekk conseil économique euh, sociaux yi fi nekk ak au conseil yi yëpp maa ngi leen di nuyu sëriñ bi mu mel ni sa kóllëre ak sa fonk kóllëre moo waral at mu jot lu mu xat-xat nga ne nañ jox sëñ Aliou Dia kàddu mu doy waaye yaa ko moom ak ci nga bokk bu doyut asi gor woon la nga lépp la nga moom lépp jox ko du ko doy amul at mun fi ñëwee ëpp na nangami at lu mu xat-xat-xat rek jàpp nga ne sëñ Aliou Dia naa mën a wax yóbbaale doomu soxna yi loola nag doy na nu ba daanaka du ñu limaaleeti ci kàddu yi sax du ko jaar del wax di nu waxaale del xalaat di nu xalaateele te xam ne loo wax ànd nañ ca loo jëf d'accord nañ ci xam naa ne bu doomu soxna yépp meloon ni yow liñ doon tooñee sëriñ si naan kañaan sëriñ saa ko séddoo sañaan googa day moom firiwut fii ndax dañu daan wax ne sëriñ si lu sëriñ jàng-jàng ba ñëw nga dikk ci sëriñ ne ko diw jàng na mu ne ah yeewoo na nga ne ko ah diw day wax dëgg dem na ci daara sàngam dem na ci daara sàngam mu ne waaye àggut ci daara sàngam te kenn mënut a daj waaye yow daal sa jikko àgg na ci kuñ tudd ku ne nga ne bu doomu soxna yi doon am wàllu yu mooy wàllu yu seedeel ko ko ay nit fuñ nekkut taxawu nga leen fuñ nekku ci sama seede daal sama digganteeg maam Cheikh mii mooy doyatuma ci moom seede te xam naa ne moom it doyatu ci man seede la ma ko mën a xaaree bu ma jaaxlee mën naa koo bañ a xaare ku ma bokk ak ndey mën naa koo bañ a xaare ku ma bokk ak baay ndax xam naa naam ci man xam naa pas-pasam ci man lum ma yéy na rek yàlla na ma teel dal toog naa benn jotaay mu téléphoné ne ma ne ma suba président Ablaye Wade daf may recevoir nag ma xaar étoile Teranga ma xëy ñëw di ko xaar ba ci yoon wi ma ne ko waaw sa yoon ak Ablaye Wade tey lu mu doon mu ne ba fa àggee da ko xam waaye bañ egsee la mu njëkk a wax Ablaye Wade booy damaa bëgg sëñ Aliou Dia mi nga ràññee ko sa jox koy teraanga loolu rek ma fi indi yàlla xam na ko fa ñu toog laa dégg Ablaye Wade de ko bi may préparé sama bindoon naa sa baay lettre boo xam ne su ma juumul 1954 la moom mii mu ne ko ci wa garam dëkk indaale na ko mu ne ko leetar baa ngi nii président Wade ne ko jox ma ko dal di woo ama maître Amadou Sall ne ko demal photocopier ma ko ci la président Wade gestu ne ma gis nga kii àggoon naay jamono bu may ñëw di di jaare si ci xam jamono baayam dana jël nit ne ko toogal ci sees bii bu fi jóg mukk te ñëw ndax bañ ko ma xañ jataay lu ma leen defalut nag dama leen a fayut waaye lebal nañ ma lu tax ma doon li ma doon waaw yéey na weesu na foofu li sant jàmm bokk ak ñoom lépp ku ma ci mas a defal loolu amul luñ ma yëy na yëy moom mooy fanaanoo ba guddi rek mu xam lu ma yee lu ma fanaanoo ak lu ma yendoo jant ma musaa seet si sëriñ Saaliw woo ne ko bëgg naa ñëw ànd ak waaye bu ñu egsee li sëriñ Saaliw di njëkk a wax ci cër yàlla mayoon ci boppam def ko nitu yàlla daf naan jàkk xool ba yàgg mu ne wutalu ma la bés wutalu ma waxtu bu ma kenn ni ma ñëwoon ko fi démb wala dafa xat gisuma la te loola ki ma ko may moom mii la toog naa ay jataayu guddi mu fëgg ma moom mii fekk ma jógee tuubaa ma ne ko waaw maam Cheikh lu xew yow tàggoowuñ léegi mu ne ma sëñ Saliou ma fëgg ne ma dégg na teraanga yoo def sa waaj wa ndax sëñ Saliou ku defe ne am na lu ko yitteelut lu baax lu ne mbaa luy jëmale nit kanam yittee ma nga mu ne ma moo ma jox enveloppe bii ne naa la ko jox ma ne ko du ma ko laal mu ne ma ëppoo ma fulla sëñ Saliou dina ma yónni ma di ko delloo boo jël ko lal ko ci sa armoire dootoo tàggoo xaalis waaye boobaak léegi day xaw ma ku banque waaye man banku ma ndax xam naa fu ma sëñ Saaliwu fare woon xaw ma ku may nettali nag koo xam ne maa ngi jàq jaaxe naan am na ci yàlla dara wala nitu yàlla la waaye sëñ Saaliwu bokku ci ci lu ma wér ci lu ma wóor ci lu ma xam ci lu ma gis ci lu ma dollandikoo booy wut nitu yàlla piir exe ci moom toogal boo ko romboo mën ngaa bañ a gisati dara kon nag sëñ man fa nga ma yóbbu xam naa ko fa nga ma teg xam naa ko na nga ma jàppee xam naa ko ab ànd nag su ëppee fukki at loo ca waay wax dëgg la lii galasil la wax léegi maa ko wax fii boobaak léegi ëpp na fukki at ma ne lii ñu la organise loo ku fi ñëw xam ne yokku na waaye ku fi ñëw ren it yokku na ma ne koo dénk nag sa organisation ne ko taxawul ma ko mu dem ak yow nangami at te ña ngi koy wan kenn ku bees kum xamul nekku ca na nanguy waxam te xam ne yow mii yokkaloo ko dara fi ne woon rek nga yor te boo ko tasaarewut dootoo ko defar ngeen baal na baal lañ leen wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bismillahi rahmani rahim ala sayyidil mursalin sayyidina wa mawlana muhammadin amin wa ala alihi wa asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokk jullit yi fi teew bokk jullit yi nuy diglu bokk jullit yi nuy seetaan ñu ñëpp ñu leen di nuyu du ubbee suñuy kàddu nag di sàkku ci ñëpp ñu bokk delloo suñu bopp ci sunu boroom Mawlaana tabaraka wa taala moom nu moom di ko ñaan ñun ñëpp ñu bokk ñaanal ak njëggal ak yërmaande sëriñ Abdul Fatah moom sëriñ Cheikh Mbakke ak sëriñ Alaaji Seck Taqe ay bokk lañu yu rafetoon ay jikko nañ leen bokk ñaanal donte benn nit la suñu borom wàcce ci moom seen ci ñoom yërmandeel ak njëggalam ak xéewalam bismillah jërëjëf yàlla yàlla moom ñaan koy nangoo rek dafa def ci téere jëf yi sëriñ Abdul Fata alay sekk taqe ak mboole bi ñu ko nekkal ak képp ku leen bu fekk ay bokk lañu te ñu rafetoon ci colonie gannaaw loolu ñu ngi sant sunu borom buur bi nga xam ne moonu may li ñu ko ñaanoon daaw ñun ñëpp biñ fi jógee daaw li ñu doon ñaan mooy fekkee ren te tal kenn mënu koo may ku dul moom ak kenn amu ko may nanu ko ñoo ko ciy sant di dellu di ko ñaan mu moyaat ba ko at yu bari ñu fekk ko te tal ko gannaaw loolu ñu ngi julli ci sayyidina Muhammad sallallahu alayhi di sëlma lu bari di ñaan suñu borom dott ci moom xéewale bi ak mboolem xeet yi ñoo ngi ubbi sunuy kàddu ci turu sunu kilifa di sunu mag alaaj Mor Fati Mbakke mi ngi moo bi nga xam ne mooy xalifa njabootu kër borom gaawal nuy ñaan sunu borom yàlla yàlla guddal aw fanam yàlla ko yàlla may wér yàlla ko yàlla defal jàmm adduna ak àllaaxa te may ko mujj rafet te boole ko ak moom ak jullit ñëpp ñu ngi koy jottalil ab nuyoom akuk cantam jëm ci bokk jullit yëpp ñi teew ak ñi amal yéene teew te teewuñu tàmbalee ko ci magam di sëriñ Sidi Muxtaar mi nga xam ne moo jiite yoonu murid bi sëriñ bi mi ngi koy siyaare di ko nuyu di ko ñaaral mi ngi jumale cant yooyu ci mbooleem xalifa généraux yi nekk ci réew mi waaye mi ngi nuyu ak di sant ki nga xam ne moo jiite réew mi ak mbooleem gouvernement lu tax bis bu toll nii ku ko am su melee nii ab taxawaayam ak jàppaleem bokk na jëf sëriñ bi mu ngi nuyu ak sant bu baax ñi mu bokkal njabootuk maam Anta Ndiaye mi wajuru borom gaawal ak sëriñ Afia di jiital ca ñooñee sëriñ Saliou Mbakke moom sëriñ Afia sëriñ bi mu ngi koy nuyu te di ko siyaare mook njaboot yëpp waaye sëriñ bi mu ngi sant bu baax rakk boppam yi ñi mu bokkal kër borom gaawal ci njiital sëriñ Jiiri Mbakke mi ngi xalifab Cheikh Mouhamadoul Mamoun sëriñ bi mu ngi koy sant cib taxawaayam ci bis bi sëriñ bi mu ngi koy sant cib taxawaayam ci kër gi waaye sëriñ bi mi ngi sant bu baax taawam bii di sëriñ Cheikh Anta moo ki rakkam yi ñëpp ndax damay wax ne lu ñépp bokk ku nekk am lu la ca war ku cee taxaw waxtu wu nekk ngir loola jëm kanam waras na laa sant sëriñ bi mu ngi sant bu baax nag bokki taalibe yi bokki taalibe yi sëriñ baa ngi leen di sant ak di seede seen pas-pas borom bi nag lu mu seede doy di sëkk te borom bi seede ne lépp wa kafa billahi sahida te yéen taalibe yi yéen yéenay réew mi gannaaw sunu borom yéen yéen a réew mi taawu réew mi dañu wax rek fii ci senegal téeméeri nit yu nekk ci réew mi juróom-ñaar fukki ya ay baykat lañu te mbay moo yorem réew te yéen yéen ay baykat yi sëriñ bu ñu fiy tudd itam ak dara ji ju manaam yéenay taalibe yi yéenay fal itam képp ku fi falu muy président de la république wala député bu fi falu yéen ko fal kon yéenay réew mi te li ñuy seetlu nag mooy lu ñuy séddale da ca ëpp yéenay gën a néew la te néew na fu ñu leen di joxe kàddu ci menn mbooloo waaye dee leen fàttaliku ne ci dund guy jeex lañu ñu nekk suñu ci jógee ñu jëm ci dund gu jeex te foofa la ñuy fayee kenn ku nekk la nga jëfal kuy bàyyi bis boobu xel nag di nga mën a muñ di nga mën a dékk lu ne Sëriñ Tuubaa dafa wax ne ab jullit warul a ragal ak faatu lu tax mu ne ndax àdduna kaso la ci jullit te xanaa ku ñu tëj kaso ba dina génn ca kaso ba da ngaa war say bokk bég bokk jullit di gannaaw loolu monsieur le ministre sëriñ bi gannaaw bu mu santee ñaan ba mu ngi lay dellu di la yóbbantewaat nga fàttalikul ko président de la République soxlay ñaari dëkk yii di Daaru Salaam gii ñu nekk ak dëkk bee mu nekk di gaawaan fii ñu nekk di Daaru ak gaawaan kay ñoo doon ñaari dëkk maam Cheikh ñuy ñaari dëkk yoo xam ne nii ñu am taarix lañu ci ci lislaam du am taarix bu rëy ci yoonu murit nañu xam ne dëkk bi Serigne Touba moo ko sancoon moo ko rafaatale borom gaawaan fi la borom gaawaan tëdd fii tey ci dëkk bi moo doomam yi ak ñëpp dëkk bu mel nii nag biig rek tegtal la ci biig bi nga xamee taw na ndox mu bari gis nañu bet yi nim taa kenn mu foo jaar te dëkk bi rëyul lu yomba defar la nanu ci président dimbale taxawal nu ci ci yi nga xam ne moom la engagé wu ci cité religieux yi nanu ci booleel Darou Salaam gii ak gaawaan gee sëriñ bi nekk diggante fii ak Mbàkke matul un kilomètre goudron bi warees na ko mën a defar su dee ca gaawaan yoon wa dox diggante gaawaan ak Bambey ba fi président toogee ba ren at mu ne sëriñ bi mi nga koy fàttali kon bu sañoon su suñu fi yàlla bàyyee su demee ne bu nu fi toog fekk mu taxawal ko ba defaral ko ci tawatam yii balaa ñu fi toogati ndax sëriñ bi xam na ne président daal bi yitteem mooy bu sañoon barab bu nekk mu def fa la fa war ba kenn du jàmbat ndax ku aaye boo sañoon dàqu ko ay waaye sëriñ bi njaboot bi ñoo koy soññ ci lu baree bari ci wax ko muy soññ président ci ñaari dëkk yii ah, te nun nag lu nuy am bu nu sañoon am ko ci yar ak i teggin ci bañ wax lu ñaaw bañ koo def waaye nag teewul ñi ngi gis di xam doxiinu réew mi ñi ngi gis ne ñi yëkkati seen i di wax lu ñaaw te di ko wax ci kaw ñu ngi leen di fajal seen soxla kon nag nun nañu xam ne danoo amub yar ami teggin am kilifa duñ jiitu suñ kilifa ci dara suñ kilifa rek la ñuy diglu moo tax yii di xew waaye ma doon noon a wax ban defar dëkk bi defar gaawaan bu yàgg ndax xam nañ fi ni jaar sëriñ bi nag amul benn yitte yu dul yii ndax juróom-ñett fukki at yu tegal la am te mësu la ñaan audience benn président de la République benn ministre itam mësu koo recevoir lu muy am lu nekk mi nga ko am ci muñ ak jaamu yàlla ak sant borom boromam sama mag yu baax génn àdduna sëriñ Asfaale Mbàkke yàlla na ko yàlla doon yërmaane daf daan wax ay taalibeem ne leen tolluwaayu jamono bu ma ko kenn jàmbat sant yàlla rek laa bëgg ngeen di ko def te loolu alxuraan la alxuraan sunu borom dafa wax ne mi ngi dig ñiy sant ndool leen waaye mi ngi tëkku ñiy xalaat jataay bu mel nii nag lu am solo la ci kaw suñu fi dee waxtaane lu yokk suñu diine di rafetal suñu bokk ndax itam baax bu mel nii nga dépassé ci ay millions at mu ne ngay répété la nga waxoon daaw amul benn jariñ li xewoon ci bis bi dafay mel ni at mu ne ñu wax ko ñu ba xam nañu ko léegi moom la ñuy wax ci rajo yi di ko wax ci télé yi ak jataay yi jiitu màggal gi te fekkoon ne nit ñu bari xam ko ndax sëriñ Moussa Ka yàlla na ko yàlla dool yërmande na ko ba ñu bari mokkal nañ ko te suñu ko toppee dafay mujj ñiy wax ne jataay bi amul njariñ dañu nuy yey kon dañuy wax ne lañ fay wax lépp dara amul fa njariñ kon suñu fi dajee nañuy wax lu nu amal njariñ amal njariñ ñi nuy teewlu kilifa gu mag nag dafa daan wax ne dajale say nawle di waxtaane sa wilaay ak maam wala sa wilaay ak baay nee na loolu borom xel du ko def te nit ku mu mën a doon su wujjee boromam mbiram leer na benn mi ngi ci ñaari kër yi nga xam ne suñu borom moom la dël jaan ñëpp te ku mu mën a doon bu fa nekkee lay yitteem mooy ñu ñaanal ko suñu borom yërmande ñaanal ko njëgal suñu borom ndax su ca kenn bu ko kenn da kenn ku soxla loolu yonent bi la yor noonu te ba ba mu fi jógee ba léegi ñi nga koy ñaanal lool yi nun nag ki nu am muy suñu kilifa di borom gaawaan ci ñaari mbir rek la nekkoon jaamu boromam to Serigne Touba ñu àndu di jaamu seen borom mu fonk liggéey lool teraanga yi mu amoon boroomam moo ko joxoon naam waaye nag ci sababu nangoo liggéey ndax bi mu fi jógee ak tey mat na juróom-ñaar fukki ak juróom-ñaar te ba tey mënuñoo xam li mu bàyyi ci ay bien man mii di wax ak yéen ba mu yeggul gis naa ku ma ji wan ay titre foncier yu bari ci réew mi ak ay ay ay ay pàcc yu bare bari ci réew yoo xam ne ak njabootam sax xamuñu ko ba léegi koo xam nag foo dem am na fa dara kooku dafa fonk liggéey ba muy jàmbaar nag yaafus waru koo donn kon ñun ñëpp war nañoo bokk taxawu góor góorgóorlu ci lii mënu fi bàyyil yéen ñi nga xam ne yéen ay comité d'organisation bi sëriñ Xaadim Mbàkke jiitu ko ak sëriñ Cheikhouna ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di ñaanal ndax seenu taxawaay nañu xam ne yokkute am na ci daaw la woon ak ren waaye ku gisan daaw gis ren xam ne yëf yi mi ngi yokku am na loo xam ne nag ku ko bëgg war ngaa xam ne di nga daje ak i jafe-jafe waxoon naa leen ko ca ca karab bañ day ca ca euh, ba bokk gi nag man ñaari mbir rek laa ci damay wax na war nañuy gise war na nañuy waxtaan ak bokk du lu woyof ak bokk dañ ko war di gise di ko waxtaane sama menn bokk mi nga mel ne den sëriñ gaawaan bi mu jógee segu bokk yu bari dañu faa ñëw di ko seet ñii di ko ndokkeel ñenn ñi di fay dox yeneen tànk ngir di rataxal digganteem ak moom ndax kàddu ya ko jiitu woon nee na keroog mu wax de keroog am na bokk yoo xam ne dañoo dugg ci barab sëriñ gaaw rek sëriñ aafe ca lañ bokk ak ñeneen nee na sëriñ ci boppam moo taxawloo kenn ca njabootam ca bunt ba fa ñu doon daje ne ko bu la kenn romb fekk nu fii ci biir la mu jot a dégg ca waxtaan sëriñ gaawoon wax ko nee na mooy daf ko wax ne ak bokk su ñu bëggee mu rafet dañuy tuddante ay doom di takkante ay soxna di seetante waaye di waxante dëgg loolu nag bokk gu mu am xeebante dafa am te xeebaate bokk gu yàqu moo ko yàq te bokk yu yuboo nañu xam ne mooy texeeg àdduna bi ci des nañuy fàttali nit ñi jikko yu rafet yi nekkoon ci Serigne Touba nekkoon ci rakkam bi ak taalibe yi ko daroon ñu ko defee di ko waxtaane moo gën fu nu daje di waxtaane ak wilaaya ak baatin ndax ba fi Sëriñ Tuubaa jullee ci géej gi ba léegi ñu di ko waxtaane ndax am na keneen ku ko fi rey déedéet te suñu doon waxtaane ay jikkoom loo ca roy raw loo ca rek yow daal di raw say morom te ku ñu mënul roy rek amul ndax yonente bi sallallahu moo war a gën a jafe roy ñëpp te moom lañu suñu borom sant nag ñu roy ko baneen bi ñuy wax bokki taalibe yi di leen soññ ci ñu jaamu yàlla seen borom nañu xam ne jaamu yàlla la moo tax suñu borom wàcc te bu koy jaamu nañu ko jaamoo ci sunna Sëriñ Tuubaa dafa wax ne alxayru kulluhu bittibaayi waaye wasarru kulluhu bi libtidaayi nee na yiw yépp mi ngi ci topp sunna waaye musiba yépp mi ngi ci topp bidaa adduna ak rek ñaari kenn yi leen mooy jaamu yàlla ak liggéey jaamu yàlla ci la ñuy yaakaare yërmaande sunu borom waaye ku nangoo liggéey te doo yàq léegi nga am ci teraanga adduna yi sunu borom di joxe ñu góor góor bu baax itam ba nekk ay jullit àqan balaa ñuy génn àdduna suñu borom nee na ak lu mën a xew wala tamootunna illa wa antum muslimoon te nekkub jullit nañu xam ne ay jikko la ab jullit biiram dafa war a set bitéem dafa war a laab mu door a nekkub jullit xolam dafa war a set wecc ci bokkaale suñu borom xolam dafa war a set wecc ci rëy xolam dafa war a set wecc ci kañaan waaye xolam dafa war a set wecc ci bëgg àdduna ñam bi ngay lekk na lew na dagan ndax lu araama lekk ci jullit su la lewee itam baaxul waaye lu dagana daga dagana nekk ci jullit te lewul itam baaxul kon farata tara ci bépp jullit ñuy fàgg lu lew te dagan waaye ab jullit ab jullit itam bitéem dafa war a laab yaramam laab la muy sol laab jullit bu mel nii ma wax la yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax ne su tàllalee ay loxoom ay tàllalee ay loxoom boromam ñaan ko dina ko nangul ak ñaanam benn mu may ko la doon ñaan aajoom faju wala mu dencal ko ko ba yamul xiyaam mu defal ko aw yiw jox ko fa la gënee wala balaa bu jëm si woon ci moom mu fekkal ko ko jar na ñaan te adduna damay wax na jërul xel wu rëy jërul wutiin wu ñaaw loo daw daw am na ko nekk si sa kanam loo yeex yeex am na ku bëgg mel ni yow te adduna lu mu la jox lu nekk bis dana ñëw mu nangu ko jox ko keneen te doomu aadama damay wax ne àndandoom bi gën a gore ci ñi muy àndal ñépp mooy jëfam moom dong moo nangoo ànd ak moom dugg ci biir bàmmeel kon jëf mat nay rafetal koo mën a àndal ku say bokk bis dana ñëw ñu delloo la say bokk ndax koo àndal te du sa mbokk la leen boole mooy man saa boo tëddee ñu delloo la say bokk te ñu bari ci sama maas gi nañu waroon mel ak seeni bokk waroon koo mel ak seeni bokk ci jaxasoo ci dimbalante ak ak seetante yeneen jàmbur lañ koy defal lu ko waral am am adduna in uridu ila allah ila al islam wa ma tawfiqi illa billah wa salatu wa salam ala sayyidina muhammad